assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, senegal Senegal salaamaaleykum mbokki groupe 100 pour 100 soppe Mame Khalifa nias yéen a ngi Thiès TV tey moom moo leen seet si woon si bésub Mame Khalifa Niass ah, ah, bésub El Hadj Abdoulaye Niass bésub Cheikhouna Tidiane Sharif ñu ñëw fekk ci di Mame Cheikh Tidia bu groupe 100 pour 100 soppe Mame Khalifa Mame Khalifa nias Mame Cheikh Tidia naka ngeen dundee bés di. siyaare lew nañu teen bu 2021 naka ngeen ko dund. waaw kay ñoo ngi siyaare ñëpp foo leen mën a nekk rek ci réew mi biti réew am mbégte kontaan bu baax a baax a baax di nuyu site bu mag bi di Jespin macha allah rabi mu nekk si boo xam ne macha allah mu ngi liggéey kër maam Khalifa Niass ci lépp loo xam ne nii kër gi da koy aajoo ci wàllu média rek mi ci taxaw ci taxaw bu dina rafet moo xam ci wàllu waaraate bi la moo xam tamit ci wàllu sikar si ñu ñaane yàlla yàlla def ko télé barki di waaw ñun moom ni ñu koy dundee mooy kontaan rek wax dëgg yàlla am bu baax a baax a baax a ndax gaa yaakaaroon ne siyaar bi du am yàlla def siyaar bi am ñu ne siyaar bi du bari nit yàlla def siyaar bi bari ñëpp rek ànd ak concentré taakil bu ko defee ñu ànd ak yar ànd ak dal daal yi macha allah rabbi tertu gan yi nu mu gën a rafetee macha allah jox leen ñam yi ñu lekk ma ne ñi naan ànd ak na respecté li nga xam ne nii mooy mesure barrière yi ginnaaw loolu lépp ku ñëw ci xadara bi rek na nga fexe calme calme bi mooy lan mooy bul def loo xam ne ni da lay indil bàkkaar waaye fexe def loo xam ne ni da lay jural njariñ macha allah rabbi loolu boo ko defee rek dana la amal njariñ li nga xam ne nii mooy sa siyaara macha allah macha allah maam Cheikh ba tey kii mooy maam Cheikh Dia géwélu maam Khalifa Abdoulaye Niass donc maam Cheikh gis nañ ne groupe 100 pour 100 soppe maam Khalifa Niass soppe groupe géwélu maam Khalifa gis nañ seen massification gis seen doole soppale ji ngeen am si kër gi lan mooy seen secret ba yéen ah, taalibe maam xalifa yëpp soppal leen boppam lan mooy seen secret waa GSPM loolu yow yow xam ngir maam xalifa wax dëgg yàlla euh, cent pour cent bi dañ ñekk ñoo xam ne ay ndaw ay ndaw ñoo fi nekk daanaka ñu fi am 30 ans bariwul ñëpp daanaka 30 ans jëm suuf la waaye dañ jël seen lépp ñu daal di ko jël jox ko xalifatul aaji Muhammad mi nga xam ne moo waxoon ne wan di bi kulla man tamassaka min bi iqaa in aw xidmatin aw nasibi dafa ñooy ñaan ndaw yoo xam ne nii dañ mën a gindi ndaw ñi jëmal leen ci yoon boo xam ne moo neex yàlla te ñooñ ñoo moo xam dañ may liggéeyal wala koo xam ne day jël ñuqi day day ñuqi def si wala koo xam ne day ñàq wala koo xam ne day ñukki ñukki wala koo xam ne dafa yor comme lu mel ni ki média bi nga xam ne mooy GSM di wane li nga xam ne moom lay kër gi di liggéey di ko wane ci internet bi ñëpp di ci dëkk ñun nag ci loolu lay nekk ndax 100 pour cent bi am na lépp boo ñëwee am na ñoo xam ne nii ay ustaas am na ñoo xam ne ay sikarkat am na ay mécanicien am na ay maçon am na sax ay étudiant am étudiante am ñoo xam ay dawal oto leen lépp daan am na fi waaye ñi jël seen lool lépp nga xam yàlla may na len ko ñene ñun mam khalifa moy tax ak ñu jël suñ lépp jox ko maam xalifa fa tabarakallah lépp lo xam ni dañ koy def ci kër gi ñu dal ci duggal duggal dugal suñ loxo mo tax fa tabarakallah secret bi daan lool liggéey rek ngir mam khalifa mo tax daan luñu bëgg am rek dañ koy am inshallah ma sha allah maam Cheikh Dieng ñu ngi lay remercier baax GSPM TV ak équipe bi yëpp ñu ngi lay remercier di am contentement bu baax di leen wax bonjour merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf yaa jërëjëf. merci merci beaucoup. Thank you. 你的脸。 Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah ah, ba tey JSBM TV mi ngi si fii si waañu ah, daayira élèves et étudiants taalibe maam Khalifa Niass ñu fi préparé lii di ay ay ay beñee ay café mu jëm si jaar bi ñu ngi fii nag en tant que JSBM TV ñu ngi fi ak suñu mbokk séeréer mi Amina Sène donc Amina tey dañoo bëgg rek nga wax si kàllaama séeréer naka la daayira étudiants yi préparé si lu jëm si waañ bi quoi. Thank you. assalamu aleykum wa rahmatullah njokoyo ngo fogole sereer maxey simna nuun nuun fop na ko no fasi mangolo simangolof na non ba xeɗana non ziar jam ñaan na men ya sam rogo ya yalax jabin na barke yal ziar fe leyaye koy étudiant ma sha Allah kontanoyo ya ba na ziar fe o weya ngara yo ayon fo pa cham andam no chaler ge den fo kede na fop angaro ya a mbi'in ne da mbi'tan d'habitude a we wey fe wene we expose ka wena wey mene fop in way partout dal ndama eno ziar fe dal parce que maam Khalifa ten jaranu in fop waaw ku wax maam Khalifa rek daanaka di nga wax séeréer parce que seeli googu Ah, dëkku séeréer la léegi ba rek lan ngay wax ci lan nga ñu mën a wax ci maam xalifa si séeréer loo xamante dina ñu mën a bégal ñun séeréer maam xalifa moom okkiin waagee lay noten fop parce que maam xalifa mene waagando an meen maam xalifa a laye yoman xiyam ten andit keel kon koy i nanga leyano ten tamit ka lay ka ke i an na rek o ngaƴo yo ke yoqna na i mbaage layo fop parce que maam xalifa okkiin waagirano an sur terre i ngonanga bo ndet ma roog maaga i macha allah donc lan ngay dernier mo ngay wax si JSPM TV. kontaan rek kontaan a paaxe dana JSPM TV fo groupe um fop ta jofa paam ba a fi xa tele xa tele roogo yaal sama fi'in barke maam Khalifa Niass amin merci beaucoup Amina merci beaucoup